مولد waaye dafa am loo xam ni bërki démb dama nekk ak Cheikh Karam Mbacké Noreyni ñoo reerandoo bërki démb ma si ko borom daaru mu ni ma sikkar boobu de ku ko dégg sa yaram araamal na sawara kon ma bëgg képp koo xam ne rek yaakaar nga Cheikhul Khadim nii ma koy waxee ñu jàng ñu wax ko juróomi minute rek def ay cant si baax ñi sëñ sëñ Mor ak Amar euh, bu ko defee a ñaan maa ngi ñaan képp koo xamante ni yaakaar nga Cheikh Mountakha Mbacké nga sikkar nii ma koy ci barke borom daaru la ilaha illallah لا إله إلا الله نعم الدار واو لا إله كان بورم دار لا إله إلا الله لا إله إلا الله كفت ما كانوا بورم دار دفنين ما كانوا بورم دار la ilaha illallah la la la maam Cheikh Modou Kara Bamba Rebel maam Cerno Ibra Faal teew mu yëgi ndar di gaynde kaatil ba mu tàngee maam Cerno wuy ji kenn dabul Cerno maam Cerno yaa di ndaamal daaru Cerno day doru Cheikh Mouhamadul Fadilu Cheikh Mouhamadul Fadilu ana soppay Serigne Fallou du ngeen taxaw magal Serigne Fallou Cheikh Mouhamadul Fadal Cheikh Mouhamadul Fadal kii mooy fay fale ku ko neex mu fal la ngay fale kii mooy saahibul kamaala awal fadaa'ilu maalam yaxwi baadul ku dem fa moom xam ni kii mooy saahibul kamaala Serigne Fallilou Serigne Fallilou Serigne Fallilou Serigne Fallilou Serigne Fallilou Serigne Fallilou Serigne Fallilou Serigne Fallilou Serigne Fallilou Serigne Fallilou Serigne Fallilou Serigne Fallilou Serigne Fallilou jaaram ci wàllu gune soodaan wa biidaan wa fore naari laajte na la maamam sërif la sërifun bun sërifun sërifun bun sërifun sërifun tuuma juulu la sëñ Fall duxut saatir mas la tas yaakaar mu def koy laaj ku laaj mu dox la la géejal sëñ Fall xam ni la ana Muhammadul Muxtaar maa la ko way yaa seexunaa fadlu yaa moom ñëpp man ci laa lawlaa ka sëriñ Falilu lawlaa ka sëriñ Falilu lawlaa ka sëriñ Falilu ana soppay sëriñ Falilu bi leen taxaw màggal sëriñ Falilu lawlaa ka sëriñ Falilu xéewal yi walwali kon buñ walwalee tee na ngeen way seexunaa fu dalaa sëriñ Falilu mooy fajrun asimun sërifun Mbàkke bu soo bele kii mooy nit te mooy wasila war dem na xewali mbaawaan dootu jeex abadan ku sopp sëñ Fallu xewal war la doodu la war dem na xewali mbaawaan dootu jeex abadan ku sopp sëñ Fallu xewal war la doodu la deru iraama na daa Cheikh Fallou fii abadin xëy ilaa man a daa tànne fi xam nanu la loo wax borom buur da gaaw koo def fii ay kuuboo waa dem seen booloo ya xam nanu la baytul wilaayati yaa yor fan mu mag ma bu wér sëriñ ka yaa jiite mboolem ñu wàllu la ko sopp sëriñ fan defal ñu màggal sëriñ fan ñu gaal gaa gi nii teeroo Muntaxa bég ma borom taar ba xam-xam ba borom maadu gàtta bég ma sëriñ Basiiru ku sopp sëriñ Basiiru dafa ñu màgg sëriñ Basiiru u xar bu gaawul almooma doyloo sëriñ Basiiru Mbàkke moom laa doyloo Bamba ko def moo doon déglu te mooy doyloo mooy akkeel mari ji cey ji la waay ñàkk ko dey nag jaaxle am ngërëmam mi xam lu dana baaxle bis ba sëriñ Basiru génnee Touba bis ba sëriñ Basiru génnee Touba bis ba sëriñ Basiru génnee Touba fekku sëriñ bu mag ba santoon Touba kajaat jooy